الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si 3 افريل 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu ñaareelu audio bés bi di sunu audio numéro 221 ci audio bi jiitu gis nañ ñan ñooy borom cëru un sixième ci audio bii nii di 221 bi ñu fas yéenee ak ndimbalu borom bi allah subhanahu wa wax ci cër bi nga xam ne moo mujj muy cëru un huitième un mbiram yomb na ndaxte kenn rekk ko mën a am kenn dong moo mën a am un mooy jabar jabar joo xam ne jëkkër ji bàyyi na fi njaboot jaboot jooju mooy am un huitième mu nekk masala boo xam ne wax dëgg yàlla euh, daanaka jullit yépp mokkal nañ ko kon soxna si nga xam ne jëkkëram dafa génn àddina bàyyi fi njaboot bàyyi na fi ay doom walla ay sët yu soqeekoo ci doomam bu góor soxna soosule cëram un huitième la sumun su nekkee ne soxna si nag moom dafa am ay wujju un huitième bi dañuy séddoo un huitième bi la ñuy séddoo du soxna su nekk day am un huitième de déedéet su nekkee ñaar dañuy séddoo un huitième bi su nekkee ñett kazalika su nekkee ñeent kazalika mbokk yi jeexal nañ ak première partie bi nga xam ne moom lañ jukki woon jagleel ko miraas dese nañu deuxième partie bi nag deuxième partie bi moom ci la ñuy indi nag ay masala maanaam ay étude de cas ay étude de cas pour mun a appliquer di nga xam ne temps yi yëpp ñu ngi koy ànd di ko jàng ci mbirum miraas parce que étude de cas yi cas pratique yi day day tax li ñu jàng mu mun a des tax ñu gën a a comprendre ay exercice d'application ay étude de cas dafay am solo lool ci ci ci ci wàllu deuxième cas bi nag deuxième partie bi deuxième partie bi maanaam étude de cas yi ñuy xaar dina am ay calcul dina am ay calcul dinañ soxla li nga xam ne jàngoon nañ ko CM2 muy réduire des fractions au même dénominateur soo amee xam nga un demi plus un tiers plus un quart loolu pour nga mën ko calculer foog nga réduire ko au même dénominateur loolu dafay bëri bëri na lool ci ci ci miras foog ñu fàttaliku ko. Euh, pour mun a def suñu ay calcul yi nga xam ne moo ñuy xaar ci miraas incha allah suñu oree rek ñu jublu ci ci ci étude de yi ci ci masala yi suñu oree rek incha allah li tàmbalee ak euh, suñu jotaay bi di ñëw nag dañuy partager audio yi nga xam ne defoon nañ leen ci ramadan parce que koor gi moom la ñuy séntu mooy actualité bi suñu jotaay bi li ñëw ñu attaqué ko defoon nañ ci déjà ay audio am nañ ci ay audio yu déjà ci ramadan ci mbirum koor ñu ngi ci youtube bi audio yooyu la incha allah lañ fas yéene di ko di ko partagé maanaam ñu ànd di ko di ko nafar yal na ci yàlla yóbboog subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم